mbokk yi ñu ngi leen di fàttali gàmmu Njàmbur Siin bi nga xamante ne mu ngi war a am le 11 octobre incha allah Serigne Saliou fay mi nga xamante ne kenn la si liggéey bi moo ngi koy fàttali ñëpp di ko fàttali am di jàmm yi di ko fàttali mbooloo euh, mbooloom di ko fàttali wëllëri di ko fàttali ñëpp di ko fàttali ëxlu Serigne Saliou Faye bis bi nag lu ko jiitu le 10 bi incha allah. da si ñaanal waajuram bu jigéen Soxna Ngoone Diouf mooy diis 10 bi waaye le 11 incha allah mooy nekk gàmm gi sëriñ bi mu ngi si woo ñëpp di ko fàttali ñëpp di ko ànd ak ñëpp fële sa dalam incha allah sa njaamur siin ñu ngi ñaanal sëriñ Saliou Faye suñu borom yàggal ko fii may ko wér ak gudd fan.